bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah salaatu wasalaamu ala maulana rasulillah gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan maqaama bi nga xam ne moom la ñuy wax katmiya ak xatmiya guddik tey gii la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi fekk mi ngi ànd ak mboolem nabiyuuna yi ak mursaluuna yi ànd ak mbooleem awliyaawu yëpp ñi daje ci bërëb ca Arafa moom mu ànd ak taalibeem Seydi Ali Harazimi ci mbir mu kéemaane def ñetti paa diggante fas gi nekkoon ak arafaat googu daje faak ñooñu yonent bu présenté ko jagleel ko may googu noonu muy loo xam ne mbooleem kuy tijaan wala ngay jullit sax loo lu ñu war a màggal la. sant yàlla bu baax di gërëm son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci confiance bi mu am ba nommé ma comme ambassadeur u Sénégal fële ca Saltanat d'Oman muy pays boo xam ne pays bu am solo la ndax ci six pays yi nga xam ne benn la ci six pays yi composé golfe bi bokk ci pays arabe yi di pays boo xam ni. Euh, depuis ay at ci gannaaw mi ngi am ak Sénégal ay relation diplomatique am ak moom euh, relation yoo xam ne aju na ci politique aju ci économie aju ci euh, ay relation culturelle ba ci li nga xam ne mooy relation wàllu diine ndax ko xam pays arabe yi xam ne suñu relation ak ñoom fasantikoo na waaye bi nga xam ne moo ci gën a am solo gën a jaxasee peuple yi mooy diine ji président nag yàlla def ni nga xamee yàgg ànd ak moom di liggéey ci gannaawam wóolu woon ko jox ko suñ confiance depuis mille treize ma waxoon ne man tànn naa pour nga dem nekk ci biti parce que man bu ma sañoon ni diplomatie demee fi mu ne euh, réew yi buñ sañoon ñi nga xam ne ñoo dégg seen langue yi jàng ko xam seen culture ñoo ñu fay représenté te comme yow sa culture ak sa njàng araab la bëggoon naa daal nga nga mën a ko amul problème mu yóbbu ma fa comme conseiller ma nekk foofu toppoon foofu ci ambassadeur bi parce que conseil yi ñooy topp toujours ci ambassadeur yore liggéey yi depuis 2014 ba léegi foofu laa nekkoon di servir foofu ci ambassade bi ba yàlla def mu gis ne euh, ci xalaatam ak jis gisam ak yaakaaraam daal di ma nommé léegi comme ambassadeur bi ma ko ciy sant di ko gërëm di ñaan yàlla confiance bi nga xam ne moom la am ci man ba xalaat ne mën naa war a mën a yóbbu turi Sénégal fu sori gën a defar relation yooyu confiance boobu yàlla na ko yàlla dëggal yàlla bu mu ci gis dara dara loo xam ne dana tax mu réccu ko wala benn sénégalais di ci am lu muy réccu. Oman ak Sénégal seen relation mi ngi bëgg yàgg tuuti euh, am na ci luñ jot a dox. ki ma fa jiitu nekkoon fa ak équipe bi mu neewloon liggéey neen ci liggéey yu rafet euh, tànk yooyu leen ñi tegu rek gën koo yaatal gën koo dëgëral euh, lu mu lu ñu defoon benn ñi fexe mu nekk fukk lu ñu fu ñu àggutoon ñi fexe ñi àgg fa gën koo yaatal daal ba Sénégal ak ñoom Oman ci boppam ñi gis seen bopp ba nga xam ne daneen xam ne jaxasoo bi am na njëriñ waaw waaw waaw surtout lu jëm ci wàllu économie parce que addina bi fi mu ne euh, lii gën a mën a boole population yi mooy ci wàllu koom-koom te réew la yoo xam ne yàlla def na am neen koom-koom bëgg neen loolu seen expérience ak seen koom-koom lu ci mën a ñëw nekk loo xam ne Sénégal dañ ci avantage wu rek danañ ci taxaw lu ci defarit relation culturelle yi diggante Oman ak Sénégal it ci wàllu diine parce que ku ne xam ne na Sénégal Euh, pays bu màgg la ci diine tey euh, pays arabe yi fa la lislaam wàcc waaye jiituwuñ senegal ci lislaam fi senegal àgg tey ak dox bi mag ñi yóbbu senegal ci diine réew bëri na réewi arabe yoo xam boo fa demee sa dang leen ci xeeb loolu ñoom ñi gën koo xam ci suñu réew yi gën a fexe am na ay outils ak ay mbir yoo xam ne ñoom am neen ko accès gu fi ci côté boobu gën a jàppale daara alquran yi école arabe yi dégg nga centre de formation yi ak yeneen ak yeneen ak yu bëri yoo xam ne ay opportunité la dinañ góorgóorlu fexe mu ñëw fii.